xam soo bëggee nek chroniqueur wul ngay am rappeur yow doonal meloman rek mais tun meloman tamit yombut il faut ngay xam punchline ba paré di teewlu classique mais nag lu rab bi tang tang tàng fans yi ñu ko def comme classico mbété barça ak real ndax té ñi ngi nan ma ngi ci ko quoi ñen ñi dem banan ban nas dib rek mo fay album ngaaka kon dib du morom motax dara leerugul lu mën ta am lépp dina leer waya mais mo la no gisé rap gal bi légui c'est bon boy c'est des jeunes talents lolu mom ko. je suis déçu je suis déçu. mais damay laaj. looy laaj. entre dip ak ngaaka kan mooy king bi. tey jii bu wax dip moom moo nekk ci kaw la def. loolu la def d' accord mais xanaa doo demee ci ay ventes la ko ëppalee ko kon ci challenge yi la. même chose la. quoi le problème kon. moom ak yaaxal. wala musiba dafa battre record king baaba. mais boo ñëwee côté statistique. dip gagné na mais boo ñëwee côté buzz ba léegi challenge di côté toog saa waay king baaba. amatuma équilibre. mais si bi nag bi first force making bi foofu dafa mel ni ngàkk dafa jàppoon tànk bi. am na force making man nelaw ma. ah kii lu ko teree nelaw. Ah, <laughs> nelaw ma nomor ma guddi dama tiit ma. Eh, <laughs> man léegi li ma jaaxal ku si gën a naaj crime sax dañ siy concurrence. léegi kuy def di vidéo doo jël sa caméra wala nga jël sa portable filmé teg na da ngay def affaire léegi da ngay def clip yu high du high class. ndaxte Ngaaka Blindé dafa def secret set ñëw Ligue des champions. nga defe ni fa lay yem. mu daal di qualifié pëldeuse ñëw ñu ne déeta mu ñëw demi finale. ñu ne déeta mu daal di génn final naan final final rek laay football. mu daal je suis peur daal. après dib si la xamee Ngaaka mii nag siège buur bi la soxla. problème yaa ngay démarré la problème yaa ngay démarré. après si la jëlee fukki million ñëpp daw foog ne kii kat ci mu daal koy ko ci musiba. wa inna ilayhi raaji'uun. bu ma gëstu gis bomb bi di ñëw si laa Bismillahirrahmanirrahim rahmaani rahim. mais kan moo njëkk a jël millions million pour koy xëpp ci clip. ça n'avait jamais auparavant existé dans l'histoire de la musique je parle même pas du hip hop. mais ba les gars yi d'accord uñu ne def na fukki million ci musiba. mais man dama jàpp ne mën ëpp lu 10 millions. parce que costume yi booy yi mu jël noonu dinañ jox ndékki dinañ jox kii réagir bu yàggee di dix millions yi xaj parce que dix millions tamit bëriwul gars yi bu leen jël dix millions teg ko foo xam na noonu noonu lay progressé na baar bi fu ne nii côté côté côté image fa ci karaw aba boobu ñuy wax ndel comme ni fa game bi ni mu amee woon doole dalaat ko rek déedéet du loolu. mais est-ce que kon musiba am na ay pic. mën naa la limal ay pic yoo xam ne yow sax doo ko foogee. ay pic yu bëri yoo xam ne mën naa nekk fii di ko génne mais dama ko def. mais di wax turu nit ci son. kon xale bu ñu boo leen wooyee ñu taxaw ke ku moo ma def lii lii. ngaa ko loo xam li sa concurrent wax. concurrent soo ko waxee nag kay may dara kay base mel ku ko dul déglu. Oh,

waaw kenn moo si toog lu coow di bëree bëri ku si toog tey jii nii King Baba moo ci nekk ku mu neex ak ku mu naqari mu ni sama yow King Baba ayo Baba wallaahi buuru rab Galsen ak buuru arène nationale ñooy am siège bi dafa mel ni dañ cee xëpp kaane plus la rek ku ñu tarxi saf na saf en tout cas daal man moom kuy king bi ci ñoom ñaar parce que man melomaan la en tout cas daal yéen ñi nga xamante ni yéenay commentaire <laughs> bàyyi leen bàyyi leen naa leen mbir mi xool leen kan mooy king bi man de lii laa wax mbaa yéen loolu ngeen wax. dinañu mën a wax Ndoye Ndiaye. acca bu ko defee suñu maam mën naa def ñaan. amiin.